léegi waaw le mouvement national des enseignants républicains bi may dégg laa bëggoon wax parce que gis voyez, ne xam nga réseau national des enseignants de la l'APR am na Youssou Touré jiite ko Amath Suzanne Camara mi ngeen bi jàkkaarloog yéen top ci gannaaw mais gis il y a le mouvement national des enseignants républicains bu ñu wax MNER alors que RNER le réseau national des enseignants républicains kooku nag dañ ne Maïmouna Sissoko moko jité bu case des tout petits ki DG case des tout petits léegi nak loolu lañ né loolu yëpp Mahmoud Saleh moko def du kenn Mahmoud Saleh ci boppam ministre d'État directeur de cabinet politique du président de la République moo nekk derrière tout ça wa Mahmoud Saleh nak mom ñëpp xam nañ ko tay té loolu sax du cëram ndax nekkoon na ministre d'État directeur de cabinet politique du président de la République kooku bu ko neexee dugg ci affaire politique structure yeeg yooyu mais tey ministre d'État directeur de cabinet administratif du président la République sa yoon nekkul ci politique mais jaxase rek ruube léegi nag loolu ñun duñ ko nangu mënul nekk ndax structure buñ koy changé ñun kenn bañul Macky président Macky Sall moom moo jiite parti bi su structure bu demee ba Youssou Touré doyu ko ñi jiite structure doyuñ ko moom moo war a woo ñooñu ne leen li ma leen dénkoon jël naa ko léegi dama koy jox keneen te loolu sax directeur des structures sax war na ko yëg ku mel na Mbaye Ndiaye mais loolu yëpp yëgu ci dara donc Mahmoud Saleh toog fi mu toog kenn xamul naar la kenn xamul séeréer la ah toog fa fa mu toog di def li ko neex di jouer à aux Jean Collin non moo raw Jean Collin Jean Collin yàlla na ko yàlla xaree àjjana waaw mais Mahmoud Saleh moo raw Jean Collin waaw léegi nag ñun fii la ñuy fekk dugal euh, dugal na ci loxoom ci euh, ci jeunes yi gis na li li li ko ci li ko ci fekk gis dugal na ci loxoom ci femmes yi gis na li ko ci fekk léegi nag enseignants yi ñoo ko dese on restera de pied ferme waaw ñu ngi wax ne jàngalekat yépp tant que le président Macky Sall waxul lañ sa lañ nekkoon lañ ci continuer nekk ci seul le président de la République Macky Sall jiite parti bi moo mën a wax lu ñuy def ak luñ dul def mais ma ma Mahmoud Saleh jiitewul parti bi du moomul parti bi tey ku mu àndal tey bu subaa mu xeex la c'est ça la vérité c'est ça c'est comme ça qu'il fonctionne nee nañ xaw ma ay maoïstes lañ xaw ma ay luñ ñu doon trotskistes ki yu kenn xamul fi la ñuy fekk waaw donc tey ku mu ngemb suba yow lay yenu ba ci suuf teg la ci suuf donc daal loolu laa ci bëggoon a yokk